ab Karim na ñëw Karim day ñëw jaar ay turkeeg jaar ay lii ak jaar ay laa na ñëw ñafe comme ñépp ñëw ñu teg waxtaan wi Karim na ñëw xam nga ne woon na législative damay ñëw damay ñëw gisuñ ko mhm. présidentielle mi ngi naan damay ñëw inscription ak truc nañ ko gis fii Karim na ñëw ñafe Sénégal waaw parce que fii la xare bi xare bi ne